nañ leen mbokk internetu Dakar Net di ànd di am si yéen mbégte ak contentement ci ànd ak yéen euh, ci euh, débat bu am solo bi ñu nar a amal ak euh, Ardo Gningue Ardo Gningue ku ne Ardo Gningue daal ni activiste ku ne Ardo Gningue daal ni porteur de voix Ardo nuyu nañu maa ngi leen di fay maa ngi nuyu waa Dakar Net yëpp di leen jaajëfal encore une fois si déplacement bi donc am mbégte ak kontante jàkkaarloog internetu Dakar Net yi jàkkaarloog askanu Sénégal pour partager ak yéen émission bi Ardo merci beaucoup mais Ardo dañuy gis ni actuellement Ardo am na lu ko lancé parce que xamuñu woon Ardo jékki-jékki rek dégg turu Ardo Ardo ñu ñu gis ni aussi li ko lancé moom mooy lan problème mu Tobène relation donc ak Tobène ak aussi problème am ak la gendarmerie Ardo est-ce que mën nga ñëwaat un peu ci problème boobu. waaw yàgg na nekk di milité wu si activisme ndax soo dee xool euh, mën naa ne affaire Tobène bi moom mooy nekk sama sixième arrestation. Euh, dikk jël si na ma ba Tivaouane amoon naa fi ay intercation parce que aussi mënul ñàkk si li nga xam moom mooy milieu activisme bi jàpp nañ ma si ay yoon yoon yoon mu nee naa la sixième fois bi mooy affaire Tobène bi donc euh, nekkul loo xam te lu bees la tey jii tey xëy ñuy dégg turu Ardo ngi si dans la presse waaye xëy na soo gisee tax bii nii te parce que lii xam ne dafa xew donc dafa dépasser la personne de Arona Gningue mais dafa la société sénégalaise raison pour laquelle société sénégalaise bi yëpp jug taxaw vraiment pour euh, ñaawlu ko pour euh, euh, vraiment wax ne kat lii kat bëggatuñu vraiment mu dalati li nga xam moom mooy sénégalais da bëggatuñu mu dalati ci askanu Sénégal. waaw problème bi problème de torture la boo xam te nii donc dañ ko am ak benn ak benn cadre bu nekk gendarmerie national mu tudd le colonel Cheikh Sarr. xam nga jël aussi mu accusé ñu aussi euh, de chanvre indien donc euh, loolu lépp bu amee yaakaar naa ne defu ko li nga xam ne mooy la personne de Ardo parce que tey su ma génnoon di ko dénoncé te buñ ñu yàgguloon di dénoncé aussi ak yeneen fee yeneen fee yoo xam ne moo ngi am ndaxte tey buñ buñ demee ba ab euh, cadre gendarmerie tudd le colonel Cheikh Sarr mën a coller motif benn citoyen amaana mun nañoo xoolaat kat est-ce ña nekk si biir prison yi ñooñu kat tey lan moo leen fi dugal. parce que tey ñoom dañ leen doon juger de leur bonne foi nekkat carrément dañoo jàpp ne képp koo xam da nga nekk prison yi rek yow da nga fa nekk parce que da def mais am na ñoo xam te ñoo ngi defuñu te dugal nañ leen fa man mii di wax ak yéen def naa mag bu Thiès def naa fa à peu près plus d'une semaine boo loolu amee nag c'est normal ñu ñu ñu ñu interroger wu poser la question à savoir est-ce que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si prison yi ñoom lañ fa nekkee ñoom ñoo leen ñoo fa ñoo ko ñoo def wala dañ leen ko tuumaal comme ça essayé nañ ma tuumaal man mii di wax ak yéen raison pour laquelle tey ñu génn pour nekk un porte de voix pour que sénégalais yëpp mën a témoin des faits li xamante ne moo xew société sénégalaise bi. ce que yow combat turbine yow rek yaa waaw combat turbine man maa si mujj. parce que waa Tóobén si boppam dañoo déterminé woon parce que dañoo jote woon ak waa ICS ñu déterminé pour seen suuf comme ni waa Nengeler déterminé woon pour seen suuf waaye tamit ginnaaw bañ fa amee ay arrestation ba pare loolu moo waral sama implication si affaire Tóobén bi parce que man mënuma seetaan injustice mënuma ko seetaan dafa nekk loo xam ne dafa dafa nekk ci man injustice mu munuma ko seetaan muy Tóobén di Nengeler di fu mu munti nekk Sénégal mënuma seetaan sénégalaise sénégalais bi nga xam ne tey ñoo ngi koy teg injustice raison pour laquelle bu loolu amee mu jug taxaw si pour doon ko xeex loolu moo waral tey li nga xam fekk moo ma si fekk mu fekk ma si. loolu nag xëy na du ma si jaaraat parce que yàgg naa cee communiqué donc ñu sénégale yëpp xam nañ ni nga xam te ne moom moo am sama diggante ak euh, waa Tobène mooy lan nekk lenn moo fa am mooy que ay sénégalais lañ. dañ leen doon teg euh, dañ leen doon teg injustice ma jug taxaw vraiment pour euh, ñaawlu ko ba lii ma fekk fekk ma si donc maa ngi leen di maa ngi jaajëfal sénégalais encore une fois si taxawaay bi nga xam ne am nañ ko si digg sama diggante ak euh, gendarmerie nationale sama diggante ak euh, le colonel waaw nga ko léegi yow ci mhm. euh, dama jàpp ne place am nekkul si gendarmerie nationale parce que tey bu ñu demee ba le on au cadre ku toll ne colonel. war a mën a jàpp un citoyen di ko torturer di ko accuser de de détention de chambre indien yamul si loolu en euh, gendarmerie nationale tijji enquête muy fese muy muy essayer de détruire li nga xam ne moom mooy preuve yi di falsifier li nga xam ne moom mooy ay signature di falsifier ay documents même ba si li nga xam ne moom mooy lieu yi nga xam moom fa la amee woon sax mu koy jéem a détruire preuve ya fa nekkoon mu mu mu mu changer dispositif fu euh, ñu ma doon torturer mu nekkoon réunion euh, kii euh, salle de réunion mu def ko salle de bureau yooyu yëpp am si salle salle euh, changé carnet bi changé ay signature yooyu yëpp am si yaakaar naa te moom mooy responsable bi parce que moom moom la képp ko xam mais Ardo lan mooy justifier loolu changé xam nga wax nit ki soo waxee ba pare dëkk yoon lañ nekk man da damaa jàpp ne ñoo ngi si dëkk yoon nit soo waxee bu fekkee li nga wax du dëgg nañu la yóbbu si yoon tey jii tey le fait que ma gën di ko wax parce que j'avais y'avait la présence de mon avocat en en, en l'occurrence maître Khoureychi Ba ma koy remercier baax baax si teewaayam foofu moom seetlu na ardoc signature bi nga xam moo nekk bi wute na loolu ak signature bi nga xam nekk si carnet bi seetlu na aussi ardoc euh, carnet bi nga xam ne moom lañ ko doon defal moom lañ ko présenté si reconstitution des faits bi maanaam ginnaaw bañ fa delluwaatee pour jéem a mbir mi carnet ba ñu fa indiwaat ute na lool ak carnet bu fa ñëw parce que carnet bu bees la benn ba pare dañu ma def premier page donc loolu bu amee nag yaakaar naa day baax ñu dénoncé ko parce que ñun aussi combat bi nekkul suñu combat mais a sénégalais yëpp la raison pour laquelle sénégalais tey il faut ñu xam li xew. léegi problème toobeen bi waaw problème toobeen bi yaakaar naa ne man ba ma ci euh, bañ ciy engagé wu boobu waa waa toobeen amaana dem nañ ci dëkk ba amuñu ñoon courant am ñoon case de mais ginnaaw ba ñu génnee ba si def ay révélation ba ñaaw li nga xam ne moo xewoon Tóobéen tey jii tey gis nañu avancement moo ngi am ndax état du Sénégal moo ngi leen di indil courant xam nga gis nañ ne aussi donc am nañ ay promesse pour que dinañ jéem a euh, seen carte de santé bi dinañ ko euh, dinañ ko euh, dinañ ko defar donc loolu lépp bu si amee grâce à yàlla combat bi nga xam ne moom moo ci am léegi nag li nga xam ne mooy problème mu suuf bi amoon seen diggante ak waa SES nag ba fi ñu toon nii négociation yi jugaatugul kaw waaw ndax xëy na dañuy bañ dañuy bëgg xaar euh, cooli jàll mais nañ dañ xamal ne tant que jaay doole ma ngi am si réew mi dinañ dinañ gis suñu taxawaay bu baax a baax baax ci li nga xam mooy boobu le problème muy foofu ak fenn fu munti doon incha allah ardool ñëwaat ci actualité ba tey muy inondation mhm. inondation bi ñu gis ne wax ji bëri na trop mais mhm. ngeen a euh, di kaas exactement gestion inondation bi moom ni ñu ko doon gérer moo baaxul mhm. wala xam nga Sénégal dafa nekk dëkk scandale surtout maag gouvernement gouvernance Macky Sall gouvernance scandaleuse la parce que suñu demee ba tey lu toll ni jafe-jafe askan wi ñu nekk am ay sinistre am ay mort en l'occurrence maa ngi leen di jaale aussi képp koo xam ne dafa ñàkk bakkanam si inondation bi buñ demee bu loolu lépp am si yaakaar naa ne war nañoo interroger wu tey ana état du Sénégal bañ génnee def seen réaction ñu xamal sénégalais ne ñoom kat def nañ 766 milliards ci li nga xam ne moom mooy inondation te gis nañ ne kat sénégalais yi ñoo ngi dee si. defuñu ko mais fan la feeñ en fait xam nga lu ne jàq kenn di ko wër. mais Ardo gis nañ ni am na lieu yoo xam nii. waaw ah. mi daana fa nekk. Ah. na aussi am na lieu yoo xam ne nii est loolu du excuse gis nga gouverner c'est prévoir du excuse benn yoon parce que yàgg na dëkk bi yàgg na di taa raison pour laquelle tey état du Sénégal foofu rôle am la pour que loolu noonu doon am taa taa googu di am tey mu war a mën a indi ay ay matukaay yu am solo mais tey fekkee dafa defar. am lu des am lu mu def ba pare bu fekkee li des moo ëpp lu mu defaat yaakaar ne boobaa y' a problème léegi nag li nga xam ne moom la ñu war a euh, interroger mooy que ne lan 766 milliards yi fan la dugg parce que 766 milliards du 766 mille du 766 millions sept on parle de 766 milliards de francs CFA budget Sénégal 4200 milliards la. soo si jëlee presque soo si jëlee presque 1000 milliards ndax 766 mille 66 milliards soriwul ak 1000 milliards soo jëlee 766 milliards nga jël si 1000 milliards bu terre bi nga jël si yeneen scandale yeneen scandale yoo xam moo fi am lan mooy des suñu alal ñun sénégalais donc ñun mënuñu jël suñu alal goo xam ne alalu sénégalais yëpp la bu ko jël di ko teg si ay loxoy nit ba pare ñu si chaque jour ñu siy dégg loo xam te ne neexu sénégalais loolu daal vraiment war nañ koo xoolaat bu baax a baax a baax. Ardo ba léegi ñu des ci gestion inondation bi euh, mhm. mais Ardo. Mhm. ñu gis ni opposants yi. Euh, xam nga dafa am lu am opposition bi ñun joxuñu leen suñu kàddu faluñu si kenn amul kenn ku nekk si opposition askan wi jox la kàddu. képp koo xamante ni tey yaa ngi si gouvernement bi xëy na sax mun naa am ay représentant ñun nañu am ay représentants si au niveau de l' assemblée nationale wala si au niveau fële ci ci li nga xam ne moom mooy euh, mairie mais li nga xam ne moom mooy état du Sénégal moom mooy yor li nga xam mooy gestion wu inondation te ñun état du Sénégal le président Macky Sall moom lañ fal léegi nag nekkul opposition bi nga xam ne tey ñoom ñoo aspiré pour nekk présidence ñun bu nekk président ñoom la ñu war ñoo ñu war a rendre compte ñoom lañu dañuy xaas si ñoom ñu def. non non du compte mais. Mhm. ñoom le que moment bii nii nii fu ñu toll. waaw jàpp ni ay euh, population yu mel ay euh, Kër Massar et cetera et cetera est-ce que de di waaw nee la ñoom amuñu ay moyens pour génne askanu euh, Kër Massar exemple. si ndox mi comme yi askanu feneen ak feneen ak Sénégal du Kër Massar rek mooy taa encore une fois loolu ñoom amuñu moyen yooyu qu'on se dise la vérité ndax faluñu leen pour ñu génne leen si euh, faluñu leen benn benn poste de responsabilité pour que ñu génne euh, du seen compétence pour que ñu génne sinistré yi si li nga xam mooy inondation bi léegi ne dafa am lu am mooy que ne ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition opposition bi seen vrai combat nekkul ay tey waaw nga war a dem joxe waroo joxe xam nga wax ji bëri da nga léegi da ngay wax doo jëf yooyu lu ñun askanu Sénégal xaaruñu foofu opposition bi opposition bi xam nga fan la ñuy xaar lan la ñuy xaar si ñoom mooy lan ñoom ñu xamal ñu ñu poser ay actes concrets mooy lan population euh, état du Sénégal lépp loo xam ne defu ko ñoom ñu taxaw ne carrément kat jug xeex ko sur le terrain waxuma la rek toog si médias yi toog di wax xam nga di bavarder chaque fois non mais dañoo war a mobiliser seen ay euh, citoyens dañoo war a mobiliser seen ay partisans ñu génn su le taxaw sur le terrain vraiment pour ñaawlu ko parce que aussi parti de position loolu mooy njëriñam parce que tey bu ñu demee ba xool li nga xam ne moom mooy euh, euh, Abdou Abdoulaye Wade euh, opposition bi yëpp ba muy opposé wu. doon nañ gis taxawaayam si opposition Abdoulaye Wade bu fekkoon scandale 6 000 milliards nga yaakaar dina demee nii xool scandale bu toll ne 6 000 milliards pétrole ak gaz nga jël permis yëpp nga salfaañe ko. fekkoon Ablaye Wade moom moo nekk si opposition jamono ñii ni may waxee ni du def si gouvernance gouvernance bi une semaine parce que loolu mooy opposition mais tey da ngay xool suñu manifestation aar la ñu bokk yi ana opposition bi